li jaajëfal sëriñ Xaddim li masawu choono ndax gis nañ li nga jankote ndax yag nañ fi lolou te mbooloo lañ fek waye nak serigne touba jaral dopp lolou ñi ñew fi ci tànk suñu kilifa rek muy serigne fallo khalifa serigne Modou Fati Xari nga xamni ni nag nga daaw ñoo fi andon ñu bok tok fi ni and yow ci bis bi ak ci ndigalul serigne Bassirou Mbacke jawrinam ñu fekk fi serigne Assis Mbacke mi ak serigne Abdoulaye Karim mu wolé ñu sëriñ Abdou Wahab jang ak serigne Modou Mbacke doom serigne Bass mooy ab nga xamni fi tay tey serigne sëriñ Modou Fatou Khara gépp waroon na ndax luñ nek nek nga jëb kon buñ sañon lo nek dañ cey nek te yalla bol nañu luñ munta sa muy serigne Massamba ta dara mus cee lepp rafet te ñi dila sago sagoo di la tiitaroo di ko ah sunu ñàkk ñëw fii ak sunu ñàkk ñàkk ñëw sëriñ Fallou ñëw ànd yow ci bis bi yendu ba gàmmu ga dañ ko wootee jëmmi sëriñ Aziz mi ak sëriñ Abdou Karim ndax sëriñ Fallou nee bu ñu fi nekkee rek moom lañ fi nekkal ak sëriñ Moustapha mais nga xam ne doomi sëriñ Mamour Moussa te diggante ak sëriñ Mamour kenn ko ne xam na ko kon fii ñu ñëw war nañ fee ñëw war nañ fee jël kàddu ñaanal la yàlla musal la ci cet àggal sa yoon ak sa mébét ci barke sëriñ Touba di sëriñ président Abdoulaye Dieye mii nga xam ni xam nañ sa digganteek moom ba nga boole woon ma ak man mii muy kóllëre kóllëre googu mu jàpp ko ak ci kanamu suñ Karim di ko rafetlu lu fedd lu kóllëre googu ndax ci àdduna de moom nga mos a wax ni ma kii de sama nit la jàppal ma ko kon xam naa am nga cër ci moom am nga la bëgg ci moom te bu ñu fi yàlla dajale waatee kon loolu mel na ni lu suñ boroom nangu la kon nag sëriñ bi na mu ngi lay lu bari di la sant di la gërëm di la ñaanal di la masawu ci coono yi tey ñaan lii nga mébét ak guddi gi nga jëm loo ci bëgg ak loo ci yéen rek boo fa jógee yàlla na ko sëriñ Tuubaa defal ndax xam nañu sa pas-pas sa yéen mooy faju ajog taalibe yi ak am ngi ngërëmal sëriñ Tuubaa rek te rafet nañ jot da nga ko ci ah kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gën sant mbooleem taalibe yi di leen xam ne day am ngeen kilifa goo xam ne kenn ku ne bëgg na mu doon sa kilifa kon ku ko yalla boole da nga wara sant yalla ndax fi mu tollu ci at ak li ko yalla defal ci say ak ci nimbalu suñ borom la du du du man man ndax bar nañu ko mat war lañu ko ëppee at wala ñu ko ëpp wërsëg te li ko yalla jagleel jagleel ko kon nak yalla yalla àggale yéeneem rek to lafal ko cat ci barke sëñ Touba di feddali wat kol rek njabot sëriñ Modou Faty rek gep rek goru jigen ma ya ndaw ci sëriñ Mamour ma sam ba ci suñu jotaay bi serigne Abdou Wahab Dieng mena xamna moy magum talib mo xamni moy mooy serigne bi ci kaddu suñu digënté ak yene serigne bak tiofel gi rek motax tax ñu ñak yorul suñu kaddu yoo xam ne ko baye kaddu gu mu àggale ko kon sëriñ Abdou jere jëf bismillahirrahmanirrahim ñu ngi ñu fi baax kilifa yi fi wuy si sëriñ xaadim gay gaydeel ci bis bii di bis bi nga xam ni bis gënu ko rëy ndax tawféex àddina ak alaaxira ak ki tax yàlla bind jaam ñi ak ki tax lu am yàlla amal ko ci dara jaam ci bis bi la feeñ àddina muy isna asara min saxi rabbihi awal di gàmmu seyduna muhammad yàlla feeñal ko ci mu doon koo xam ni moo ñëw ngir dimbali xeet wi cent vingt quatre mille yëpp jibril la wax na ak ñoom waaye trois cent treize lañ ci yónni vingt cinq la ci alxuraan waxal cinq yi génn première position sëñ Tuubaa ne li lakki na ma ahmadou nel muxtaaru muxtaaru ñu génnee rasul lay muy première bis bi nag sëriñ Saaliw joxoon ko ci ndigal ne ko sesele na ko sama gamu gi ci Touba bim ko ci dox ndigalit ci bisu gamu la ko dox yëkkati suukar ak warga ak la tay nechip ko demal ties nga dundal ko kon lu ñu dundal ci bir néeg mu genn ci sal ne ci eut ne ci baas ba ak ci kon liggey bobu serigne bi te guddi gi serigne Touba mo wax ni mawlidil basir yahmi mi wa duyur fihi uli sudur li kulli waaye fa fa fa innahu kaman xadar yow ma uneeni wa sabar wa yow badrin wa nasar xeyrel waraam mu fa xami fa kullu man anfaqa fii mawlidihi musharrafi maalan bi xeyri sharafi walaw bi xadir yi nga xam ni nekk na ci dundal guddi gàmmu nee na ku ko dundal taxsimahu bi sunnati teg ko ci sunna yàqu dinaa di jannati moom loolu dañu di yóbbu àjjana ñoom ñëpp bis jaadu bi nati li ma wax li sin mu waaye fa man yu xaasi mawlida xayril baraya ahmada fakka fakka shahidan shahida badran bi xayri waxami waaye wax na ni falaa yu xaasabul xisaab indal xisaab bi ma xëy kon nag ku ko fekk si bis bi ñoo ngi ñaan yool woowu yàlla na ngeen ko bokk daje di siyaare bu baax mboolem kilifa yi fi teew di ci jiital sëriñ Modou Kara Mbàkke mii toog mu sëriñ Modou Faati Xëri moomu Seex Masamba mu teew fi nag teewal fi sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ni mooy xalifa di sëriñ Modou Faty Khary waaye bi mu agsee ñaari rakkam yi baax yi ko dalal muy sëriñ Abdou Karim Mbacke mu sëriñ Modou Faty xëri fekk goog sëriñ Abdou Aziz Mbacke moom sëriñ Modou Faty Khary sëriñ bi bi muy ñëw mu ànd ak doomam ji di sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Basirou moomu sëriñ Modou Faty Khary and ak Serigne Abdou Dieng mi nga xamni ni day jëwriñu kër Serigne Modou Fati Xëri taxawaay bii mu amoon ci Serigne Modou ko ak mom bañ nopi ko gis mu wéyale ko ci Serigne Cheikh loolu la yeggale ci Cheikh Mamadou Fadel ñi fi ne kon mom rek bu taxawoon ni Serigne Modou Fati Xëri rek mu doy sëkk ndax waccu way am ko fi ci kër gi nga fekk fi ni sadako bop bi di sëriñ mu Moustapha Mbacke moom sëñ Mamor moo ma moo ma Cheikh Massamba sëñ Moustapha Kamal mii nga xam ni sëriñ Mamor moo ko féetale sëriñ bi ñuy siyaare bu sëriñ daam njëgën a ngi nii toog nga fekk sëñ Baye sëriñ Mbay di nuyu bu baax sëriñ Saliou Fall Ngunda mii toog mu sëñ Basirou Fall alxuraan di ko siyaare bu baax di ko ndokkeel jox ko wàccuwaayam siyaare bu baax sëriñ siyaare bu baax sëriñ Mamor mi nga xam ni moom sëriñ Baara Fall borom tawa ku ko xam sëriñ sëriñ Saliou Fall ak sëriñ Daouda Kane ñoom la sëriñ Baara yabal ñoomit it ñi ngi fi ñoo ngi di siyaare Serigne Modou Kara jërëjëf yaa ngi feggoog jàmbaar nit ku baax ku bëgg sëriñ Khadim ku ko téye ku ko jàpp ku ko jiital ci léppam amu ci demi mesure lu sëriñ bi bëgg bëgg na ko lu sëriñ bi bëggul bëgg na ko lu sëriñ bi ne mu ne ci ak moom fu sëriñ bi gersu gis ko ci ginnaawam ñii ñëw bari na ku ñëw dugg génn dem waaye moom nag moo fi dëkk muy président Abdoulaye Dièye mi toog di jàmbaar di nit ku baax di nitu qualité di nitu valeur leen tax ma di la ko seereel mooy Serigne Khadim mi yéen la am yéen it moom ngeen am te Abdoulaye da ko ni koo am bëgg naa koo am loo nekk maa ca Serigne bi jàpp ci loxoom ne ko ma nit ñun amuñu fa ëpp Daaru Karim yóbbu ko ba ci Serigne Mamor. mi eh, di xalifa ma sàmba ne ko liggéey baa ngi noonu loo defal kii man nga ko defal loo fi jëf ci mën nga ko jëf te loolu Lamine Diagne ñi nga xam ni day ànd ak moom ne ci sëñ Mamor ne ci sëriñ bi mat na ci seere buñ dee dem Cheikh Mountakha danaan sëñ bi yow lay déglu bu Kazu Rajab jotee mu ne ko yow lay déglu kon kooku jàppam ci sëriñ bi tegu ko ci ay postu wala ay nomination la maam ya àndee woon mom la japp tan serigne khadim ci bir gaay def ko muy xaritam ndax mom Mor da bay moy mamam te serigne mom Mor da bay ak euh, Cheikh Massamba lu ñepp ma sa xam la kon nak ñongi lay nuyoolee wat ak mom bu baaxa baax muy nit ku baax di jambar serigne fallu mu serigne Modou Fati xëri up. serigne bi wax na ni mom rek dafa ëpp délégation bi mu yabal ëpp waxatumaan nag mu yëkkati ay teranga di ca dolli ndax nee na bis bii sëriñ sëriñ na fàlloo ko moom moom lañ koy defal kon lu fi war rek moom suñ xaayam loolu moo ko ci war a defal waaye nag bu sëriñ fàllu jëlee délégation bu toll nii yëkkatiwaat ay jëf ci nee loolu wax dëgg yàlla moom am na ci cant boo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sëriñ xaadim loo mii bis dafa toog ak sëriñ Cheikh Moussa Modou Faty Khary sëriñ seex ne ko fi ma def sama xol yàlla rek laa ko seere ñu siggi mu ne koo Masamba Konte mais maa ko moom jëlal maamay la mi ngi nii toog kon day ay diggante yoo xam ni ak mbokk da koo lal waaye pas-pas bu wóor lal ko sëriñ Karim mii ak sëriñ Abdou Aziz nekkal nañ nen fi ndax boobaak tey saa bu weer wi teroo dañuy ànd ak sëriñ bi ba ni fajaru gàmmu kon nag ñoom bu ñu fi teewee rek kër sëñ Modou Faty Khary gépp teew nañ waaye nii ngeen defaat nak sëriñ bi nag mi ngi leen ni rëy na ci moom te na ci diyo di yóbbante nuyoo nag ci magam ja xaritam ba sëriñam ba di sëriñ Fallou Mbacké mu sëriñ Modou Faty Khary yàlla may ko gudd fan yàlla may ko yan bi nga xam ni moom la ko fi sëriñ Cheikh bayil nee na yàlla na diis gan waaye nag bu bu diisee yàlla nak yàlla nak ko Cheikh Massamba téenu moom daal ñoo xam ne bég na nga xamni ya yaa bi nee ngay xaritam di kenn ci mom ci seen digënté yag lool Serigne fallu gamu gi at mi ko njëkk def fi ci baghdad mo fi njëkk ñew ci kilifa suba tel la fi aksi ne Serigne bi dama jóge Touba jëm coon waye faw ma jaar fi nga gis ma ma gis la wa neena bin bin bin ko daan def fa par parcel sax fo fo fo fa la daan yandu ba bin ko indé baghdad mo fi njëkk keroog ci suba gi kon nag mom dañ koy sant di ko diko di ko ñaanal yalla guddal farante wéral ko lu baax lu ne dana ko am lépp lu mu gisagul dafa ne ci yoon wi ndax dafa topp magam sëriñ seex ñu tuddee ko sëñ fàllu bàyyi fàllu sëriñ seex léegi du xaddar lu mu rëy rëy rëy li muy neex neex ni kenn du ñibbi dañ naan nan fanaan ba suba nu xaar ndog yi sëriñ fàllu yi kon nag moom sëriñ baa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan